Diouf maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ak sa tur sa sant di nuyu président yi nga xam ne ñoo ma sagal su ma koy lim fi fii fanaan ñi gën a jege mooy Gambie ñi gën a sori mooy président yi nga xam ne ñoo jóge ci yeneen réew yu mel ne Rwanda ak Tony Blair nga xam ne nekkoon na premier ministre bu Angleterre kon du lu ndaw tey nag ko wal sa moomee <laughs> maa wal sama moomee yéen a bëgg ma tollonti moo tax may tollonti man lii duma ko ndamoo lu tax du ma ko ndamoo mooy boo fi taxawee tey di tollante ginnaaw yàlla ak yéen la kon maa ngi gëmloo sénégalais yi ne incha allah rabi ni ngeen yaakaar ci man noonu laa ko doxalee te li nga xam ne mooy sama mandat quinquennat bi c'est pour la jeunesse et la femme sénégalaise parce que vraiment dama leen ñemantal dama leen yërëmtal da ngay toog ba si yàgg nga dégg ñu ne kii am na quarante ans quarante cinq ans musul sëy musul yooyu goro sëy musul muur musul lekk laaxu seet laaxu seet nu mu neexee takk nañ la nga am sa soxna ñu ne la bu mu la njëkk lekk ci laax bi bu mu la jëppale yàlla boo leen muuru <laughs> monsieur les invités vous m'excusez ah ngeen baal ma je fais une explication dans mon domaine traditionnel yàlla boo leen muuru ñu ne la nag ki la njëkk lekk lu bëri wala na nga ko sëlam ba ngeen saamal de <laughs> léegi imaginer nga dund ba doy te dafa loolu. dafa ñaaw. te xam nga tamit loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la. parce que àdduna loo fi gis rek dafay jeex waaye yéenu ma leen loolu. li am solo. mooy fexe ba ñëpp daa day mën a am jëkkër yàlla nag mooy dogal. waaye am nañu ay pexe yoo xam ne mun mënuñu ko def incha allah. te dañ ko jéem a vulgariser indi ci suñu ay solution parce que ku nekk war nga mën a ñam li nga xam ne moom la sëy di sax. moo taxit moo taxit dinaa dayal jigéen yi nga xam ne ñoo tudd association ñamaguñu <laughs> ñamaguñu sëy moom dinaa leen di jële dimbale leen ci cadre boobu léegi bu weesoo loolu maa ngi dégg ñoom mu dëkk ñaa ñuy sànni xeer waa xeer na doy <laughs> man woo naa opposition bi yëpp nañ ñëw ñu liggéey xeer na doy bu fekkee dañ bëgg a xam laata laa am ci alal tey laa leen koy leeral jël leen bigg ak fooy tey man 2012 laa yor Sénégal ba 2019 dëgg rek laay wax te yàlla tax ñaari kër la am benn baa ngi Fatick benn baa ngi Fann résidence Mermoz bi te dëgg moo tax may wax kër ga la fa nekk mun naa leen ko wax Fatick kër gu nekk da am xaru sarax am naa xaru sarax bu weex boo xam ne mu ngi ci juróom benneelu atam bu góor la ñaareel bi am naa ay lapin yoo xam ne Amadou moo bëgg ay lapin te yooyu maa ko jëlal bu dee ay bien yu ñu compté la samay bien la kër ga rez-de-chaussée la ak ci kaw ñetti néeg moo fa nekk ak ak sarale ak néegu cumukaay parce que yooyu mënut a ñàkk waaw mënut a ñàkk <laughs> ñaareel bi mooy bu dee grand boobu bëreelu ma ci parce que li ma sol grand boobu bëreewul ñeent laa ci am bu weex bu marron ak bu beige waaye costume yi ma fi fekk laa fi sol parce que état moo la koy jox am naa ñeenti xar yu góor ñaari xar yu jigéen benn bi nag dafa ëmb xaw ma luy jur am fukki seq tiir yu góor ah. yoo xam ne sequ ñoo kenn dara ah. ay seq yu seq kenn dara ah, ñaareel bi maa nga ñaari barigo diwlin ak barigo ceeb yoo xam ne ceebu waalo la bu ma jox bu nekk sama kër waaye su ma xëyee comme que man gëj naa gis ñaari junne ak téeméer téeméeri dërëm ak ñaar ñaar téeméer ak juróom fukk ak cent franc dama nekkee président ba léegi teguma ko bët oh. waaw laay may xaalis danaa doxantu xaalis ma crédit ma jënduma connexion jënduma essence joxewuma dépense laay doy xaalis sama poche sama compte banque nag li ci nekk du ma leen ko nëbb diggante ak yàlla yonent bi su wax dëgg la tax cent quatre vingt mille francs moo fa nekk quatre vingt mille francs tey nag ma xamal leen salaire chef d'état téeméeri junni yu manqué fukki junni la moom laay fayee ko su ma fayee ko fay ndox fay courant fay jànq bi li ci des sema dëgg ma jënd ci ay sarax sarax ko mu dem waaw loolu moom laa leen bëgg xamal li ma am te nag nit laa koo xam ne tamit aw ma benn problème sinon dent naa fukki caay ak ñeent yoo xam ne pour su génn la ma caay moom fi nañ ko fekk tukulóor ak caay séeréer ak caay waaw juróomeel bi mooy sama diggante ak yéen amu mën na bëgg ndax benn soxna ngeen ma xamee te benn soxna boobu moo nekk ci man waaw te première dame moom la amul benn problème waaw wax dëgg yàlla yërmande bi ma am ci yéen jigéen ñi su ma demee ba mu tar ba wër na ma fu mu ne nii métti na métti na wax ak maram wax ak maram bi mooy fexe parce que benn jigéen benn góor mënul takkandoo ñaar fukk lislaam nangu ko mais mun naa mun naa def loo xam ne lu am solo la kaay ma wax leen lu taggoo tàggoog yéen kaay kii mun na nekk présidente des femmes célibataires tafal ni kaay association des jeunes cherche mari kaay association des femmes divorcées et qui veut se remarier léegi nag pour ma sagal leen ci association bi man en tant que président Macky Sall danaa def loo xam ne nangu ma koon def mais dinaa dima dimbali sénégalais ci li nga xam ne moom la am sama xam-xam jigéen ñi danañ sëy ci sama mandat bi te defal na kii mooy présidente des femmes divorcées et qui veut présidente des femmes cherche mari ak la l'association des jeunes fi sans mari célibataire léegi dinaa wax marem damay plouf ku ci tombel mu mel na ñaareel boobu ma représenté jigéen ñi sëy kon nag fuluf usab waayu dem makka da ngay noos noos bu neex caas dogu yàpp libar mburu oto sardin alkaati dama dàq ci gendarmerie di ma sane foroma duut foroma duut ndaat saay lii du hasard parce que am naa jigéen bu ñuul su ma amee jigéen bu gàtt bu xees mooy jigéen Sénégal la ñaareelu mandat ñaareelu jabar maa tey Love